man Modou Faye mbokku murit maay jéema way ku am mérit ku diine yépp def xarit ndax melokaanam teewlu leen ci bismillah lay defu sas bind di way seex Mahi Ñas xalifa seex Ibrahima Ñas siggil na réew mi génn leen na réew mi génn teeru ko waa jàngu beek nu niiru ko nan àndandoo dem santi ko siggil na diine nangu leen juboole na niti darfuur yi daa gisante xol di fuur bañ boole seen gànnaay ya wéer jàmm ñëwaat fa sant leen Darfour la dem gis seeni xeet wax leen lu tax ñu ne waxeet àndaat juboo seen xel ya xóot wéer seeni ngànnaay bokk yoon réew mépp bég nañ ci sa jëf diine ngi naan la jërëjëf sag nga fa jàmm doon tërëf mbokki Sudan feexal nga leen Cheikh Tidiane Serif ma ca faas bég na ci yow Cheikh Mahi Niass Darfour nga dem matal fa sas wu mag a mag wum la sasoon xaadir murit waa kër baay laay bég nañ ci yow xalifa baay ndax waar wu sell wii nga bay àdduna sépp ñoo ko seen nga yàgg ñas ci Sénégal ànd ak wér matal say naal juboole yaa ci suñu misaal Medina Baay Ñas sant leen